aousubillahi mina sheytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu waay mën a nekk ñoo leen di saar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér giram di ko sàkku ci yéen rawatina yéen njaboot ci Salaam si baaw Daaru Salaam si baaw dana seet wala seetale wax la sarax fa nga dem defi fa tey dañu indi secret boo xam ne dox ci wàllu ubbeeku lii benn aaya la ba ne ci suratul fàtte sori ja nag boo duggee suratul rek ma nga jax muy aaya ubbeeku ko kaay aaya bu am solo la nag ndax yàllaa ko wax yonente bi sallallahu wa sallam ne ko dinañ jàppandal say mbir jàppandal bu kowe loolu nag bu yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaale na ko mboolem xeetam yépp ngi biir képp kuy jullit yaa ngi biir aaya bi maa ngi nag bu jëkk dañ kaa jëfandikoo ci wàllu ku tëju bëgg ubbeeku waaye laa ku mbiram dëgër tam bëgg mbiram yomb maa ngi ci loolu lañ kaa doxal li nag da koy bind boole ko ak faatiha da ngay bind bismillaahi rahmaani rahiim gis nañ ko alhamdulillahi rabbil aalamiina benn aaya faatiha mu jeex dégg nga def aaya bi waaye na siraka laahu nasran aziza lii rek mooy aaya bi wa yansuraka allahu nasran aziza moom ngay bind diggante aaya fatiha bu nekk bu fatiha bi jeexee da nga am juróom-ñaari aaya bi wa yansuraka allahu ak benn fatiha nga def ko ci ndox nga wut sunguf bu nuy wax waswasoor lay àndal sunguf waswasoor waswasoor fi ma boo ko arabee aaya bi moom ci lim lay jox ci siifur day tolloog aaya bi waswasoor lay àndal sunguf bi boo demee jaay nga di garab bi boo leen waxee wax soosoo rek ñoom dinañ la ko jaay nga bind ko nii alhamdulilah rabbi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin nga tekki wayen sadakallahu nasrul aziza diggante aaya fatiha bu nekk bu fatiha jeexee da ngay am juróom-ñaari aaya wayen sadakallahu ak benn fatihatul kitaab nga boole ko sunguf wax soosoo nga koy sangoo juróom-ñaari fan ci kàttan suñu borom tabaaraka wa taala dana ubbi doomu bi dana tax ay mbirum tamit di jàppale di yomb kon ñoo leen ziar leen ñaanal jàmm di ko sàkku di yéen rawatina yéen ñaa ngi ci Daaru Salaam si baaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi